asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay ba mu mat sëkk di am contentement ak mbégte waxtu bu ne ni ngeen koy defee ni ñu koy defee ngeen safo choisir chaîne askan wi la chaîne leader Dakar People ñuy ànd ak yéen di siwal di feeñal ak a wéyalee boroom xam-xam fépp mu nekk ci biir réew mi tey nag ñëwaat nañ beneen yoon seen numéro seet si kilifa yi pour ñu am ak yéen waxtaan waxtaan yu am solo ci wàllu àdduna si wàllu jafe-jafe ci wàllu yéey ci àdduna ci wàllu xam-xam ak yu ni mel tey nag ñëwaat nañ si ku xam ku ngeen ràññee nekk kilifa boroom xam-xam kenn dul naatable macha allah.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 ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel bu baax di nuyu waa senegal di nuyu waa addina bi yépp di ñaan jàmm ci réew mi ñaan ko ci àddina bi di sant yàlla bu baax mi nga xam ne moom lañu doon ñaan ñu fekkee wat yi ci jàmm ñu dugg ci ci bismillah ñu génnee ci alhamdulillah te yàlla defal ñu euh, defal nañu ko. kon nañu mm-hmm. koy dañ koy sant bu baax. Mm-hmm. am na solo salaam. Mm-hmm. Euh, te defal na defal na defal nañu salaam. ci loolu. kon salaam boobu la ñu ñaanaat rek yàlla na ko yàlla gën a def ci Sénégal. gën koo def ci àddina bi. Euh, ñëpp juboo ñëpp doon benn bokk ndey bokk baay. parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. Macky Sall moom la yàlla nattoo moo jiite. na gën a rafetal. <laughs> doxalin bi am na solo maanaam ñi ko topp tamit wala ñi ñiy xëccu pour bëgg am tamit mhm. ñoom tamit ñu ñu gën a rafetal rek parce que mbir mi moom rafetal la rek mhm. yàlla dafa dafa dafa dafa bind rafet mhm. mu digle ko da ko bëgg ci lépp nag da ko bëgg ci kaddu da ko bëgg ci jëf da ku doon rendi sax eh, yonent bi sallallahu alayhi dafa wax na ngeen rafetal rend eh, maanaam bi mhm. même sooy rendi sa ganaar wala sa nag wala sa gëlëm wala yaa xam na ngeen rafetal bi bul wax ne rek dama koy rendi dama koy rey rek mhm. eh, paaka bi war na ñaw mhm. war nga ko war nga rendi ci ci lu gaaw mu mu mu mu mu dee maanaam mu noppaliku waaye nag foofu ngay kii kii kii loolu eh, de maanaam soxor la te yàlla mooy raxmaan ku bari yërmande tey mooy joxe nguur nguur ci loxoom la nekk hmm. nekkul ci loxo kenn hmm. qul illahuma malikal mulki tuuti mulk man tasha be laay bi jeex hmm. yàlla mooy joxe nguur moo koy jox ki ko soob la wax waxul ki leen soob mën na ma soob wala soob kele sàmba soob la wala demba soob la wante ki soob yàlla bu dee ahmad la wala muusa la moom lay jox kon ah, xam ne ki yàlla jox moom la jox ñëpp ñu mm, ànd nangu ndogal boobu noonu ñu nag dañu gëm yàlla wante gëmuñu ndogal li ñu wax al qadru xadru mhm. nag mooy ndogal ndogal ndogal dafa am ñaar dafa am xayr dafa am char mhm. maanaam am na lu ci baax am na lu ci garaaw mhm. am na lu ci neex am na lu ci métti waaye ñun su neexee rek dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy nangu waaye su demee ba metti rek dañuy dañuy bañ eh, ñu indi tuuma yi nag lu nekk ñu teg ko fekk du loolu yàlla nee na tabaaraka alladi bi yadihi l mulk yàlla moom mooy mi nga ki nga xam ne ci loxoom la nguur nekk uh-huh. kon yàlla rek mooy buur bi nga xam du mos a folleeku uh-huh. yàlla bi mu doone buur ba léegi uh-huh. mu ngi doon buur rek boobu dara amagul sax ba dara am bay dara jeex yàlla moom nguuram du jeex ku dul yàlla nag yàlla dina la abal tuuti may la tuuti ay fan su fan yi jeexee jeex na su su ñëpp ànde pour nga nekk fi te yàlla àndu ci doo fi nekk su nekk ñëpp ànde tamit pour nga jóge fi te yàlla waxul da fiy jógi du tax nga jóge fi kon mbir yi su la yàlla joxee santal su la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yàlla lépp lu mu def rek moo gën yàlla su la mayee dañ koy ñaan sax yàlla su la mayee yàlla na may bi doon may. Mhm. parce que yàlla mën na la may ba bi du may de. Mhm. yaa ko gisee may fekk du may. Mhm. fekk loolu def lay lor. Eh, bu dina la xañ mbir tamit nga defee ne def laa xañ. fekk xañ bi mu la xañ may la. waaw ne loolu moo tax nag yàlla dañu koy ñaan suñu maye yàlla na may bi doon may. wan suñu xam xañee tamit yàlla na xañ bi doon may ba léegi. kon loolu moo tax ñu ngi sant yalla bu baax. macha allah ni ñu ko doxalee tamit rafet na nañu gën a rafetal mbir yi nañu gën a rafetal Sénégal nañu gën a liggéey. Eh, ñi nekk tamit na am na ñu dem am na ñu ñëw mhm. ñi ñëw dañu am ci ñoom yaakaar mhm. yaakaar bi ñu am ci ñoom nag mhm. yàlla bu ñu tas yaakaar parce que moom ah, du tas tas yaakaar bi eh, war nag dafa bari nit su waree nag soo jàppee da ngaa war nit yi waroo kenn sa bopp nga war yuxaadi'uuna allah walladina ah, amanu wa ma yaxda'uun illa anfusahum wa ma yashuruun nit boppam lay war kon ah, maa ngi ñaan ñëpp daal eh, ñu gën a eh, liggéey gën a toppatoo réew mi a fonk réew mi ngir maanaam liggéey bu baax a baax askan wi uh-huh. parce que moo tax ñu ci ñoom yaakaar ba fol leen uh-huh. ñu bañ a war incha allah macha allah xam naa tamit uh, uh-huh. xam naa nuyoo bi dina xaw gudd tuuti uh, fan yi maa ngi dégg yu bari yoo xam ne ñu wax ci ay oustaz ci ay kilifa ci lu ne tuuma yi tuuma yu bari te tuuma moom waaw yàgg na fi moom yàgg na wante nag dañuy wax ne rek yonent bi sallallahu alayhi wax ne da ma yuribuk ila ma la yuribuk bu dee lii soo ko defee wala soo ko jegee def lay indil jiigi jaar wala sikk sàkk wala ñu tuumal la neen danga ko war a sori danga ko war a sori loolu moo tax nag euh, soo gisee yenn tuuma yi uh-huh. nit yi ñu koy tuumal nit yi sax dañ ci xaw a jege tuuti uh-huh. ci wàllu wax wala ci wàllu jëf uh-huh. waaye soo bëggee yow nga nga nga rek mucc nag yombul yombul soo gën a dangay dow waaw dangay dow bu baax a baax nga moytu ci ci say kaddu tamit ci say jëf ci say melokaan ci say comportement loolu yëpp dafa war a kii te damay dégg ñuy wax ne ustaas yi borom xam-xam dañu bëgg jigéen nangam nangam kan moo bañ jigéen ah. kenn bañul jigéen koo fi gis rek. Mhm. mu ngi am soxna wala mu ngi bëgg am soxna. Mhm. te ñun ñëpp ay jigéen moo ñu jur bokk si mhm. ay jigéen moo ñu kuy bañ jigéen rek mooy kii nekkoon fii nga am jikku wala aada jahiliya ja waa jahiliya lu njëkk islaam ñoom dañu bañoon jigéen. suñu amoon doom bu jigéen dañuy dafa leen di métti. dañuy rus dañuy nëbbatu. du ñu ñemee génn ñaar la ñu xalaat maanaam rey doom bi rek. wala teeju bañ a génn. Mhm. parce que suñu génnee ci mbedd rek. day mhm. leen di mbellee day leen di wax nekk. Mhm. loolu nag loolu loolu loolu mbiru mbiru jaahiliya la loolu amatul fi. ñun nag ku bëgg jigéen rek wala kuy teral jigéen rek. ku tedd rek wala ku baax moo koy def waaye ku bañ jigéen rek na nga xam ne yow moom teraanga nekkul ci yow loolu yonent bi sallallahu alayhi ah, wax na ko kon ah, damay wax ne maanaam euh, na wala jigéen dafa bokk ci góor uh-huh. maanaam daa bokk ci góor loolu moo tax il faut góor yi bokk jigéen yi uh-huh. parce que ci ñoom lañ leen binde uh-huh. bu dee ci ñoom la ñuy jógee nag loolu ci ñoom la bokk il faut nga leen ñeneen ñi tamit gisuñu seen ayib dañu gis ayib ustaas yi rek wala borom xam-xam yi dañu bëgg jigéen dañuy xemmem dañu nangam nangam kan moo dul xemmem ñëpp di xem ñëpp ñooy xemmem ah ñëpp ñi ustaas yi sax lu ñu def lu tuuti la te dégg naa ñu bari ñu wax ne waaw waaw amul benn bàkkaar bàkkaar yaakaar la rek uh-huh. waaw kii Samba defee Demba def Oustaz def Serigne def kee def kee def ñëpp ñoo ci bàkkaar bàkkaar la uh-huh. bu dee njaaloo la la rek uh-huh. bu dee fenn fenn la bu dee sàcc sàcc la rek kon loolu moo tax nag eh, maa ngi gën a ñaax sama mbokk Oustaz yi ñu gën a farlu ci seen surtout eh, eh, zaman bi ñu nii affaire internet dafa doy waar lool dangay wax fii benn wax bu ndaw rek fekk jël nañu ko doo ci yëg dara mais gis ñu woon ko addina bi te loolu dafa doy papa nag miiru ma wax dëgg yàlla waaye nag xam naa ne ku baax la eh, borom xam la te mu ngi def effort tamit ci diina ji loolu daal xam naa ko ku so soxna boobu tamit xaw ma ko wax dëgg yàlla gis naa seen photo yeeg ñu wax bi ñuy wax ci ñoom rek waaye dégguma soxna si wax dégguma oustaz papa an wax eh, moo yàlla dafa wax ne balil insaanu ala nafsi basira kenn ku ne yaa gën a xam sa bopp bu dee dee def nañu ah xam nañ bu dee defuñu tamit xam nañu mhm. yàlla nee na wala tuzakku anfusakum balillahu yuzakki man yasha mhm. jarul ngeen di satal sax seen bopp jaru ko mhm. yàlla bu dee bu dee bu dee du yow rek yàlla dina la satal waaw moo tax nag euh, duma mën a wax ci loolu lu bari wante xam naa daal yonent bi nee na kuy suturaal kuy suturaal nit wala jullit yàlla dina la suturaal ñun ñëpp am ayib ñëpp moo fi ne sutur yàlla kes kes moo fi def bakkaar nga sax mhm. béjjén mhm. kon <laughs> béjjén dina bari bari de mhm. ay jigéen ñu sax béjjén ay góor ñu sax béjjén ay kilifa yu sax béjjén ay président yu sax jé maanaam béjjén ay ministère ay ay ay du jeex kon sutur yàlla moo fi nekk sutur boobu nag yàlla moo ñu ko eh, defal nañu nañu bay sutur boobu fi ñu bañ a eh, ñàkk li ñuy def kenn ku ne ngay weer sa moro kon loolu moo tax kenn ku ne nag sa ay bokk doy Eh, walis ayib keneen. Hmm. ni ko yonent bi waxee. macha allah Thierno Tidiane ba borom rawaani waxtaan bi am na solo trop macha allah kaddu am na solo trop dénkaane am na solo trop macha allah. Hmm. xam naa bu ñu paree ci loolu pour ñu bañ guddal rek xam naa ni hmm. waxtu nekk na li nga xam ne tënk na la lool. te am na ay sujet am na ay points yu amoon solo yoo xam ne bëgg nañ ci dugg ci ak yow ngeen di ñu ci ay leeral bu ko defee mbokki internet yi nga xam ne ñoo safoo ànd ak ñun. mun si jëriñu ñun tam ñu jëriñu si. sëriñ bi bu ñu paree ci loolu. mbiru Mm. ndaxte yaakaar naa ni ku ne Cerno Tidiane Ba. Mm. dàkkantaan bi ñu lay woowee mooy mbiru rawxaan. te mm. mbiru rawxaan mun naa ne ñu bëri. am nañ ci ay lënt lënt. tey jii wax ci mbiru rawxaan. kilifa gu mel ni yow ko nan dikkee ak tamit tey jii rawxaan lan la lay jëriñ sa wàllu liggéey. xam nga ñu bari dañuy woote am kasfu. Mm-hmm. ñu mm-hmm. dañuy woote ne am nañ kasfu. Mm-hmm. fekk amuñu kasfu. café la ñu am café. café lan mooy café. café mooy bi ñuy affaire bi ñu kii pour ndekki. Mm-hmm. bu ñuy defar pour ñu de mm-hmm. ndekki. Mm-hmm. wala pour suñu maree café rek ñu naan. café waaw fekk amuñu kashf. café la ñu am. bari na ñuy oote bi tamit euh, doon rasul. rasul mooy ki ñu yónni. fekk duñu rasul yooyu de rasul ot rasul yi nekk ci ot. <laughs> ay rasul lañ waaw ay rasul lañ. loolu dafa bari. mbiru rawaxaan nag yàgg naa ko waxtaane sax maanaam wax wax naa ko ci waxtaan yu bari. Euh, rawxaan boobu nag macha allah euh, feeñu na mhm. ay fi maanaam euh, lu bari te tamit ba léegi ma ngi ànd ak moom gis nga bi ma teg nii. Mhm. mooy perikal bi ma teg nii. Mhm. su ma wirde tur woowu noonu pour rawxaan bi ñëw. moom lay lal. waaw su ma ko lalee dama wirde rawaan bi ba mu ñëw ci kaw mbalaan bi lay ñëw. jaan lay doon nag. su ñëwee jaan lay doon. am na leket bu ma teg bu ma bu teg ci biir. su su ñëwee damay jël mbalaan bi ni mu ñëwee ci mbalaan bi e, tëdd noonu rek e, noonu laa jëlee mbalaan mi dem yóbbu ci leket bi def ko ci leket bi mhm. mu indiwaat mbalaan mi mhm. léegi nag moom day liggéey ci leket boobu noonu da ci liggéey su defee lu mu war a def ba pare après day dem yoona léegi nag yow soo bëggee sangu say affaire ci leket boobu ngay ngay ngay sangu keneen koo xam ne war nga ko sang sangat ci laket boobu noonu su ñëwee tamit ci laket boobu nga koy sangat waaye du ñëpp nag du ñëpp ñoo ci sangu de mm-hmm. dafa am ñoo xam ne rek ñooy war a sangu ci laket boobu noonu mm-hmm. bu dee ku fi nekkul nag kooku mën nga jël sunguf yi ngay defar nga def ko ci laket bi nga euh, wax li ngay wax defar ko ba bekki mocca ko ba pare mm-hmm. nga jël ko def ko fi maanaam nga nga nga yónnee ko maanaam ñaan yi bu dee ku fi nekkul bu dee ku fi nekk nag bu dee def war a sangu fii day sangu fii ba pare nga jokk ay garab mu dem loolu rawaxaan bi da koy def rawaxaan bi nag jox na ma ñeenti téere uh-huh. maanaam waaw jox na benn téere boo xam ne benn sëriñ mooko ko bind ci Fuuta uh-huh. tudd tuddoon Ceerno Mahmoud Dia uh-huh. dundatul na uh, téere bi téere bu am solo la mu ngi wax ci tariqatu tijaniya am am ay masala ay laaj ak ay tont téere bu am solo la uh, boobu jox na ma jox na beneen téere boo xam ne listixaar la bi may njëkk jox téere boobu daf may wax ne bii de maa ngi la koy jox waaye di ci am million boobu yàgg na may wax loolu. Uh-huh. Eh, jox ma beneen téere boo xam ne beneen ñaan boo xam ne mu ngi tudd ijabatu du'a. Uh-huh. boobu tamit pour ñaan buy nangu la. waaw jox na ma tamit beneen eh, maanaam eh, sirru mooy affaire listixaara. Uh-huh. mooy ci wàllu lixlaas. waaw loolu sirru lixlaas la. daf ma ko jox am na lu mu àndal wax na loo bëgg xam rek. ci loolu nga koy jaare mhm. kon jox na ma ñeent yooyu am na yeneen ak yeneen waat ñeent yu loolay wax mhm. jox na ma eh, ñaari téeri yooyu jox ma beneen ñaan bi tudd ijabatu du'a jox ma sirru maanaam eh, ixlaas mhm. ci wàllu istixaara kon loolu moo tax nag rawaxaan bi eh, macha allah moom su ma ko laalee rek tuuti rek. Mhm. da nga dem ay gis résultat. Mhm. parce que moom day dem liggéey. Mhm. waaw day génn dem ci bi eh, di di liggéey. maanaam di indi ay nit. waaw loolu moo tax liggéey liggéey liggéey raw maanaam liggéey rawaxaan bii la. ba tax na kon loolu moo tax rawaxaan boobu nag eh, mas naa wax turam fii sax. wante du ma wax. mas naa wax turam nangam la tudd. wante tey du jar ma wax ko. maanaam wax na ma tamit eh, ay at yoo xam su ma fi yeggee. dina indi kilifa yi dina indi ministère yi dina indi maanaam ku nekk uh-huh. rek moo na ko andi uh-huh. loolu nag ñëwagul des na ci at yi uh-huh. loolu moo tax mos naa sax wax waaye loolu yëpp dama ko wax tey incha allah xam naan foofu lay yem ci wàllu rawxaan bi euh, ci après ñu dugg ci beneen question incha allah macha bi leer li am na solo trop yaakaar na hmm. loolu moo nekkoon tontu bi ci mbiru rawxaan yi moo hmm. ci loolu sëriñ bi hmm. bëgg naa ñu dugg tamit ci benn mbir boo xam ne nii guddi ñu toll gis nañ ni bëri na lool lool lool lool. Mhm. muy mbiram dëddale. Mhm. ndaxte mun naa ne zaman bi ñu nekk. Mhm. nekk na benn maanaa boo xam ne. faral nañ ko di ko gis. ci mbiru wàllu tamit sëy ci wàllu. liggéey mhm. ci wàllu tey ji gis ni sa doom mu ngi woon ci dara lu bon mhm. nga dëddale ko yaakaar naa dëddale dafa nekk mhm. mbir bi nga xam ne am na njëriñ ci benn sens ñàkk na njëriñ tamit ci beneen kii ndaxte mun na defar mun na yàq waaw waaw dëddale def am ñaar ñoo xam ne ñu ngi ànd ndax maanaam ñu ngi ànd te fekk seen ànd ànd bu neex yàlla la boo xam ne islam nangu na ko boobu kooku ku leen dëddale rek fekk amul benn lor bu ci nekk nag parce ay nit tamit mën nañu ànd ci liw yàlla bëgg fekk lor am na ci <laughs> nga wax leen ah yéen de il faut ngeen séparé wu parce que deful lor dina leen dina dina leen dal ci nangam mm-hmm. te gëmuñu loola nga fexe nag ba loolu deñ mm-hmm. loolu tamit dara nekku ci parce que mm-hmm. lor moo tax wala nga gis ñoo xam dañu ànd ak ci dañu ànd ak euh, maanaam ci loo xam ne nekkul yàlla maanaam góor ak jigéen ñoo xam dañu ànd rek noonu fekk affaire bi nekkul loolu nekkul say nekkul dara. Mm-hmm. nga fexe tamit be nga dindi loola nga def tafriq mooy dëddal seen diggante. Mm-hmm. loolu tamit tuyaabal dara mm-hmm. nekku ci. loolu moo tax nag man bi may jàng ndar dama mos toog ci ci ci bitti noonu rek fekk benn am na benn alluwa boo fa tegu bu ndaw. jékki-jékki rek mu jël alluwa bi binda ci benn hadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi mu ngi ciy wax ne ku séparé ñaari way dencant. wala ñaar ñoo xam ne daal dañu àndoon ci ci yàlla mhm. nga séparé leen yow daal yàlla dina séparé sa diggante ak aljanna doo dugg aljanna maanaam jëkkër ak euh, jabar mhm. nga fexe be nga séparé leen fekk ñoom ñu ngi nekkoon ci seen sëy du dara fekk lu du dul soxor moo tax nga def ko mhm. yaa xam ujja yaa xam keneen ko ku bëgg jël soxna si wala koo xam ne day day bëgg ku góor kooku noonu nangam nangam moo en tout cas moo def tafriq boobu kooku moom neen du dugg aljanna mu bind hadis boobu ci allo bi ma teg allo bi noonu dem doomu sëriñ bi ñëw am benn jigéen bu jóge ci biir dëkk bi ñëw ci moom wax demaa dama bëggoon nga defal ma daal deddal sama diggante ak borom sama borom kër ak xawma ak wujjam xawma uh-huh. xawma aaw bi la xawma ñaareel la uh-huh. se doomu sëriñ bi de dem jël allo bi pour bindal kooku uh-huh. mu gis ma bind hadis bi ak ah neen yonent bi neen de ku ko def doo dugg àjjan diggante jëkkër ak jabar mu dem teg allo bi ndànk wax soxna si après xam naa ne nga ñëwaat fii bi ma demee ba ñëw nag wax ma wahma waɗa kiwiya bindon hadis mbi allah bini a wawmako bindamade dema togon noon ndere jek jekki rek bind ko ci yewde nga deftere sax xamoo ko am na ku fi ñëw daal ma wax ma loolu pour ma defal ko euh, déddale ma jël allubi pour bindal ko rek ma gis li nga ci bind loolu de moo ma ci génne moo tax mm-hmm. defu ma mm-hmm. kon yow ti li nga def sax xamoo ma ne waaw yàlla moo ma xam naa ne ilham dara ma mm-hmm. yàlla jox rek pour ma pour pour waaw pour ma nga bañ bañ a def lii kon loolu moo tax na dëdd def dafa doy waar maanaam man bala ma koy defal nit dina fekk leer na de waaw day leer de wante ñëw rek ni dëdd daal diw diw wax rek fekk déedéet du ma defee noonu te wal su ma xamee ne kii tamit lu muy wax du dégg dinaa ko laaj loo xam ne yoru ko su ko su ko defee booba du ñëw parce que du daw loolu moo tax nag mbiru déddaale eh, fu leer lañ koy tex parce que li ci yonente bi wax rek wax naa ko li alquran neen yata al yu allimuuna eh, wala kam ni ko alquran waxee daal ñu ngi ñu ngi jàng ci ñoom ki ñu wax ah, maanaam ah, Haarut wa Maarut ñu ngi jëlee ci seen xam-xam loo xam ne day séparé ñaari nit non loolu nag nee na amul njëriñ waaw ah, lor bi moo ëpp njëriñ bi kon loolu moo tax na macha allah déddaale balaa ñu koy defal day fekk mu leer macha allah Thierno Tidiane ba borom rawxaan bi leer li am na solo trop yaakaar naa loolu moo nekkoon tontu bi ci wàllu dëddale. Hmm. suñu paree ci loolu sëriñ bi bëgg naa ñëw tuuti. Hmm. ci mbiru sunguf. Hmm. ndaxte képp ku xam Thierno Tidiane ba. xam ne suñu borom daf ko may tegtal. may ko ci loxo bu gudd macha allah. ci mbiru sunguf. ñëwal ma ci mbiru sunguf tuuti te digganteeg sunguf. waaw ah, dafa am ñu may laaj ñu wax ma lu tax yow sa client bitim réew ñoo ëpp sa client fii Sénégal ma ne waaw loolu de am na secret mhm. dafa am benn sunguf boo xam ne soo koy suuro mhm. sa client duñu jege mhm. duñu sori na loolu boobu sunguf nag dama koy dama koy dama koy jëfandikoo loolu moo tax ah, ah moo tax yow ñu gën a sori rek ñoo lay kii ma ne ko waaw sunguf boobu nag ah, sunguf ba am solo la yaa xam nag sëriñ nga yaa xam président yaa xam eh, maanaam ku dangay jaay yaa xam looy liggéey <laughs> uh-huh. nga bëgg am ay clients yu yu sori uh-huh. sungu boobu noonu soo ko jëfandikoo clients yu nekk bitim réew ngay am uh-huh. doo am yu nekk fii am na beneen nag booy suuroo nag même soo tëj woon sa biir nekk dinga am xaalis moom moom soriwul moom mën na dem fu nekk nag waante ñuy jege ak ñu sori yëpp lay indi boobu tamit am na so xiwoon eh, suuru ko sa nekk tëj sax nit dina la woo jox la mhm. boobu tamit am na waate bale nag moom day dox ci client yu sori mhm. loolu moo tax nag euh, boobu am solo yeneen li des nag mooy am na sunguf yu fi nekk sunguf yoo xam ne ci ubbeeku rek la ñuy dox mhm. wàllu wërsëg wàllu wërsëg benn sunguf bi tudd waa bi jami lañ koy wax ci pulaar mooy guy goo xam ne daa daa daa boot garabu garab ki euh, daxaar sunguf boobu noonu dafa am nooy mel soo koy uti. Mhm. sunguf sunguf kilifa la. Mhm. maanaam ñi nga xam ne ay kilifa lañu. Mhm. moo nekk nii. waaw ñi nga xam ne ay kilifa lañu. mel ni Macky Sall. nekk ci nguur gi. mel ni ñu koy ut nekk ci mairie yu mel noonu. Euh, sunguf boobu sunguf maanaam sunguf bi ci loolu lay dox. maanaam ko koo xam ne da ko bëgg samp rek. wala da ko bëgg fol wala da nga ko maanaam. Euh, taxawal mm-hmm. tey mm-hmm. mu gën a koyo mu gën a yëkkatiku mm-hmm. ci place bi mu ne mooy sunguf bii nii sunguf ba am solo loolu moo tax nag euh, man ñu ngi koy wax ci pulaar waa bi jet mi yombul nag sunguf bu jafe la man ci àll morla bi laa koy amee moom mag sunguf bi nga xam ne ku la liggéey dee ci garab euh, nit daanu woon dee foofu laa koy utee loolu ma tax nag dafa nag nekk lu lu lu lu métti lu jafe mm-hmm. Mm-hmm. parce que da ngay wër àll bi mm-hmm. te suñu demee ci àll bi uti garab be ba ñëw tamit dañuy dem ci machine bi machine bi defar garab yi yëpp ñëw ñu jël te maanaam ñëw teg garab yi loolu ma tax nag ku ko soxla tamit il faut nga sonna ci tuuti tamit parce que ñun tamit dañuy sonna dafa métti am nañ équipe bu nekk Casamance am nañ bu nekk bu nekk Mboro am nañ bu nekk Morla ñoom ñëpp suñu duggee ci àll bi tamit su mhm. ah, suñu ñëwee il faut ñu fay leen mhm. loolu moo tax ñoom dañu dañu dañu ci liggéey la kon ku ko soxla tamit il faut nga def dara garab boo am solo mhm. maa ngi commencé ci Macky Sall nag wàcc ba suuf ñëpp la ba macha allah Thierno Tidiane Ba leeral li am na solo trop yaakaar naa ni dinañ ko ne lool ci mbirum sunguf te yaakaar naa sunguf dafa bëri bëri na ay maanaa bëri na tamit bëri na waaye wute na tey bëgg naa nga ñëwoon ma si ñetti sunguf yoo xam ne bëgg naa ko jël Mm-hmm. nga jaaxatal la ma ci muy sungufu wës wësoor mm-hmm. sungufu belluñu ak sungufu ngeer mm-hmm. ndaxte yaakaar naa ni nekk na ñett sunguf yi nekk na sunguf yoo xam ne am na njëriñ lool lool lool allah xam nga sunguf uh, was wasoor mu ngi si sunguf yi nii sunguf boobu soo so so soo baat bi maanaam was wasoor <laughs> am laay bu muy jàpp benn laay bu nekk suratul fathi mooy wa yansuraka allahu nasran azizan laay uh-huh. boobu soo ko calculer def uh, calcul uh, adat ko daa bi uh-huh. day jàpp huit cent dix-huit waswasu loolu lay jàpp uh-huh. huit cent dix-huit da ngay bind laay bi adat bi mooy huit cent dix-huit après nga jël ko nga boole ko ci waswasoor bi moom loolu kes rek doy na ubbeeku loolu kes doy na ci mbir ubbeeku bu dee belwel ngil ak ngeer nag loolu ñu ngi ko jëlee ci suñu benn maam koo xam ne mbir ubbeeku moom ci loolu kese la ko doon def mhm. eh, maanaam waswasu maanaam belwel ngel ak eh, ngeer mhm. mën na ubbi nit mhm. soo xamee ni koy utee ak ni nga koy jaare ak ni koy moccee loolu rek doy na ci mbir ubbeeku xanaa nag nga jël alquran boole ci mu gën a neex rek te sungu bu ñu teg fii rek ci muslaay am na alquran bu dee ci ubbeeku am na alquran loolu moo tax nag belwel ngel ak ngeer daanaka sama maam boobu ci loolu rek la doon ubbi nit yi te mhm. fu nekk lañ doon jóge mhm. fu nekk fu nekk kon mhm. sunguf yu am solo yeneen sunguf yu baari nag ñu ngi fi loolu moo yoo xam ne sax mono ko euh, maanaam tobb bu doon tey da nga bëgg gën a kowe maanaam war fu nga nekk rek nga war waa war na ñu nekk foofu loolu tobb da ciy baax tobb nag mooy mooy xam ci kaw garab ngeen ko tobb new am topp new boobu tamit mu ngi sunguf yi nii fan lañu koy amee mooy Casamance mënoo ko amee fii sunguf bu seer la sunguf bu jafe la loolu nag alalu jinne la nag soo ko gisee sax il faut nga takk ci dara soo ko takkul soo ci takkul dara soo demee ñëw doo ko fekkaat dina fekk dem loolu moo tax tamit sunguf bu am solo ci wàllu ubbeeku ci wàllu am am loolu boobu mu ngi fi bu dee tey euh, wàllu maanaam euh, liggéey maanaam ku liggéey wala sax yaa ngi ci boo xam ne dafa am euh, ñu la féeti kaw mhm. di ñu mel ne dafa mel dañu laa war mhm. waaw dañu laa def mbaam daal léegi ñu war la mhm. am na sunguf boy laal boobu ñu ngi koy wax ci pulaar mooy war ndunaaki ci olof mooy rey rey doon rey doon am na fii ci côté yenn sax yenn saa yi foofu laa ko ute rey doon wa rey doon wante gën a bëri benn garab bi nga xam garab bu fekk da lay rey waaw day sax <laughs> ko moom des fa loolu nag ku nekk ci place yaa xam euh, ci kër nga nekk wala foo mën a nekk poste boo mën a yore uh-huh. nga bëgg fa mel nga bëgg maanaam nga sapaat uh-huh. rek moom lañu ñu dégg uh-huh. wala yow yaay feeñ foofu wala yaay feeti kaw foofu mooy sunguf boobu noonu roy maanaam rey rey doon boobu moom moom ngay euh, jëfandikoo ku la waroon tamit dañ ko waraat ku la liggéeyoon tamit liggéey bi dina delluwaat ci moom kon sunguf boobu am solo la loolu moo tax maa ngi ko mu ngi ñëw nii sax ci yoon bi mu ngi jógee Casamance incha allah xam naa su ñëwee Eh, dina am ñu ko soxla <laughs> te yàgg nañ ko soxla <laughs> booba incha allah dinañ ci mën a jot <laughs> wante yeneen sunguf yi tamit bari na ñu ngi fii incha allah ci sunguf na dinaa ci indi laay alquran xam nga yàlla dafa wax ci suratu rahman wan najmu wa shajaru yasjudaan mhm. nee na biddéew ak garab mhm. yàlla tudd biddéew tudd garab mhm. biddéew fi mu nekk ci kaw asma ak garab fi mu nekk ci kaw suuf nu ñu soraanti maanaam soriyanto lu tax yàlla tudd biddéew tudd garab loolu jara seetaan biddéew dafa am euh, maqaama hmm. maanaam dafa am martaba bu mu yore hmm. euh, garab am martaba bu mu yore te yàlla nee na an wan wan najmu wa shajaru yasjudan ñeen dañu sujud hmm. ñoom ñaar dañu sujud biddéew day sujud garab day sujud fu ñuy sujud fu ñuy sujud maanaam fan la ñuy sujud ñoom ñaar am na fu ñuy sujud fi ñuy sujud nag loolu mbir la mbiru baatin la mhm. xam nga baatin moom su nekkul baatin nekk baatin mhm. te loolu mbiru baatin la la yéen doo ko mën a wax wax ci comme waxtaan yi nii mhm. léegi nag garab nga xam ne yont yàlla Muusa bi ko yàlla woowee turu Sina ñetti mbir la gis am na saf maanaam safar fii nag mooy leer bi garab nekkoon na fa tuuru Sina mooy doj wa nekkoon na fa nekk ñetti mbir ñetti maqaama yooy gis nga leer bi moo taxaw taxawaay biddew bi yàlla wax fale garab bi mooy taxawaay taxawaay garab bi ba léegi uh-huh. wante doj bi na doj bi mooy montagne bi uh-huh. ñoom ñaar dañu sujuut ci ban maqaam maqaam montagne bi la ñu sujuut uh-huh. maanaam biddéew bi ak ak garab bi kon luñu lu muy firi rek mooy nubu wilaay dafa am lu ñuy wax nubu ci bal wàllu nubu nubu maanaam nubu wa ci ci biddéew ci yonent yi wilaay nag ci wallu garab yi Cheikh Tidiane nee na man may suuf si mboolem awliya yi ñooy garab yi kon ba tax na garab ku ko xamul rek moo koy tuutil man gém gém gémuma garab duma sangu garab nangam dafa wax ci beneen aaya alquran ci suratul waaqia afara'aytumu naara allati tuuruun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mataan lakum wa mataan lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim maanaam yàlla neen safar bi ngeen di taal safara soosu noonu ci garab lay jóge nee na garab boobu ku ko saxal est am na ku ko saxal ku dul yàlla yàlla nee na a ko saxal wala maa ko garab boobu nag bi ko saxalee jox leen xel yoo xam ne mën ngeen liggéey be génnee ci safara te safara boobu noonu yëpp ñoo koy soxla mhm. yow lépp loo soxla ci safara nga koy jaare mhm. courant bi ñu taal sa safara mhm. soo toog sa sa lekk yaa xam ataaya yaa xam añ la yaa xam reer la yaa xam lu mën doon yaa xam sax sa yàpp boobu bëgg togg ci safara ngay jaare ah, soo demee bés ci jamono sedd la ñu nekk dangay jaar loolu safara moo koy def te safara suusu nag mu ngi jógee ci gara ci ay garab ne yàlla nee na garab yooyu nag dem ko def ngir mu nekk seen fattali mu nekk seen seen seen seen xam-xam boo xam di ngeen ci wala xalaat mhm. du du nekk garab noonu rek mhm. te du ngeen xalaat du ngeen ci seetlu mhm. du ngeen ci tazkiratan la wax kon garab il faut dañ koy jàng dañ koy xam dañ koy maîtrise dafa bëri njëriñ waaw te ismullahil azam la garab ismullahil azam ñu bëri xamuñu loolu te lépp loo soxla rek mu ngi ci garab yaa xam sa laal nga soxla wala sa fauteuil nga soxla wala sa lépp loo mën a soxla rek. Mhm. mu ngi ci garab nañ ko waaw même néeg sax dañ koy defaree ci garab. Mhm. loolu nag garab nag eh, maanaam eh, nee na mu nekk ñi ñaxal mataanu lil muqwiina mhm. pour yéen wànni garab nee na li ci gën a wóor soo koy uti. nga utee ko tur yàlla fasabbih bismi rabbikal azim loolu moo tax jàng faate jàng salaatu ala nabi doy na sax ci uti garab soo demee pour jënda ko rek li des moom daana loolu baax na ba léegi waan soo jàngoon faate jàng salaatu ala rek jëndal garab bi loolu doy na mhm. parce que alquran loolu la loolu la mhm. kon yàlla mu ngi wax ne nañu fonk garab parce que garab moo ko saxal moo indi ndox moo indi garab parce que doo maanaam soo demee ci kaw maa ngi sax dugg pulaar bi mhm. soo demee saa yehi dow saa yehi soo demee ci kaw asmaan mu nga fa euh, mu nga weer mu nga jant mu nga fa niir mu nga du juróom soo wàccee ci suuf suuf mu ngi fi euh, mu ngi fi Euh, garab mu ngi fi. Mhm. doj mu ngi fi. Mhm. ndox mu ngi fi mhm. juróom. kon juróom ci kaw juróom ci suuf wa tilka asharatun kaamila yàlla neen fukk lañ. yow juróom baaraam nga def ci kaw mooy loxo bi. juróom baaraam ci suuf. kon mu ngi lay jàngal kaw yi nekk ci kaw. juróom yi nekk ci kaw te yooyu dañuy jàngal xaahul laahu jabrut malakut loolu la ñuy jàngale wàcce ci suuf muy mu lay jàngale lool soo boole mu nekk dix kon loolu moo tax nag dangay xam ne ci biddew bi yàlla tuddoon mu nga fa wante suuf tamit garab bi yàlla tuddoo mu ngi ci xadaratul xamsi yi uh-huh. kon loolu moo tax war nañ fonk garab garab ko ku bëgg kowe rek moo koy ñami uh-huh. parce que wan najmu wa shajaru yasjudaan uh-huh. kon loolu moo tax na loolu laa bëggoon macha allah Thierno Tidiane Ba leeral li am na solo trop macha allah yaatal bi am na solo trop yaakaar naa wéral nga ni mbirum garab nekk na lu am solo bëri na ay njëriñ bëri na ay mbóot macha allah xam naa bu ñu paree loolu sëriñ bi tamit ci mm. mbiru jigéen yi nga xam ne mm. dañoo taxawal maanaam mm. à chaque fois dañuy gis ni bari na guddi yuñ toll mm-hmm. jigéen yu bëri daanaka dañuy dem ba jël ëmb mm-hmm. daanaka mbir moomu noonu day nekk li nga xam ne mm-hmm. day dellu maanaam ñu avorté sëriñ bi loolu lu koy waral ak lan mooy saafara waaw li ci gën a bëri moom lu bari mën na ko andi feebar bu nekk ci biir sax mën na ko andi émori mën na ko cité mën na ko andi yeneen feebar yu nekk ci biir mën na ko andi. Hmm. rab mën ko andi liggéey mën na ko andi cat mën na ko andi lu koy indi daal bëri na. ba tax na loolu tamit eh, am nañu saafara. Hmm. am na ay garab yoo xam ne soo ko naanee bu dee feebar bu nekk ci biir rek lépp lu mu fekkoon ci yow dina ko jeexal. Hmm. dafa am garab yoo xam ne soo koy sangu sax tooke bu mu fekkoon ci yow. nga koy sangu koy naan. tooke bu mu fekkoon ci yow rek wala poson bu mu fekkoon ci yow. virus bu mu mën a fekkee ci yow lu mu mën a doon rek. Mhm. yaa xam liggéey la yaa xam seytaane la yaa xam euh, rab la yaa xam lu mu mën doon cat la dina ko dindi ba mu set bu dee ci biir feebar bu fa nekkoon dina génn bu dee ci bit tamit lu ko lu la jàppoon ci wàllu bit dina génne loolu. Mhm. garab yooyu macha allah euh, am na fi mhm. kon lu tax jigéen tamit boo xam ne yenn saa yi day ëmb muy yàqu tamit. am na ay téere boo koy bindal. soo ko bindalee téere boobu moom si bisimilah rahmaani rahiim lañ koy lañ koy bind dafa am lim booy bind. soo ko bindees booba su ko defee téere incha allah loolu dootu ko daal uh-huh. bu doon affaire rab rek wala affaire chat wala yu mel noonu dootu ko daal uh-huh. bu dee feebar bi uh-huh. loolu moo tax nag il faut nga ut euh, docteur yi tamit ak euh, garabu pol yi pour nga mën a wér ci loolu incha allah loolu laa ci bëggoon a junj ci wàllu boobu noonu bu dee jigéen boo xam ne na jigéen bu fay laa bëgg bu fay waaw bu fay sëriñ bi loolu bu fay macha allah yaa ngi ciy def ay. Hmm. maanaam def ci ay kéemtaan yu am am solo lool lool lool lool. Hmm. yaakaar naa ni kenn buggul yor sa soxna. Hmm. mu xëy xëy rek guddi. xëy xëy rek mbës ñëw. mu mu wor la ginnaaw. ndaxte loolu kenn buggu ko sëriñ bi. loolu. mbir yi ciy yaa yaa allah kéemaan yooyu lan la. parce que euh, xam nga jigéen euh, nit day sonn pour am soxna. def ci lu nekk. Euh, mu ñëw du nangu toog xam loolu daa métti de waaw li ngay moom rek balaa ngay mba jël daanaka ay millions yu bari la wala ay xaalis bu bari euh, xew bi tamit kazalik liñ ci def bari na lool waaye nag mu ñëw du nangu toog il faut nga def ko ñaam joor ñaam joor nag fekk doo ko lor yow tamit góor ñu bari tamit dañu lor seen soxna yi duñu leen defal li leen war defal ba pare ñu bëgg leen def ñaam joor loolu tamit du yoon il faut yow soo defee li war wala ni nga ko mënee mm-hmm. yàlla neen li yunfiq zu saatin min saati ku nekk ni nga ko mënee ni nga dépasse bi nga mën a joxe mm-hmm. nanga nga dépasse joxe dépasse boobu noonu mm-hmm. soo mënee joxe ñeenti téeméer joxe soo mënee joxe téeméer maanaam euh, ñaari téeméer joxe soo mënee joxe junne sax joxe kenn ku nekk fi nga tollu rek léegi nag euh, soxna soo bëggee ma toog am na looy def am na loo xam ne soo ko bind sax da ngay jël suuf tànkam nga boole ko ci suul ko ci place bi ci kër gi dootu fi kenn am na loo xam ne tamit euh, ci garab lañ koy defar maam bi soo daggee garab boobu dañ koy natt ci tànkam après nga nga daaj ko ci kër gi am na loo xam ne dañ koy euh, bind nga def ko ci kër gi am na loo xam ne tamit dañ koy def ci lekk soo ko defee su booba dootul génn seen kër sax dootul balaa muy dem seen kër sax yaa koy force mm-hmm. doo dem sayit mbokk yi nangam wax ah di dema tayal bayramto nangam xale yi dugg fi génn fi mhm. loolu am na kon loolu laa la i laa ci jun bi waxtaan bi am na solo trop macha allah mhm. leeralee am na solo trop mhm. yaakaar naa ni comme ni ma ko waxee woon ci njalbeen waxtu nekk na li nga xam ne xaw na la tënk mais sëriñ Thierno Tidiane mënuma la seet si te duma waxtaanee daj dëpp gi muy mbirum kàttan lu dox sa diggante ak mbirum kàttan waaw kattan de fan yi maa ngi seetaan wal fajiri mu gis benn journaliste tudd Sa Ndiogou ak beneen journaliste xam mhm. Assane la tudd xawam mhm. ñu ngi joxe nima numéro man jëloon naa numéro bi sax woote mhm. pour ma jot leen dañoo wax ne sëriñ yi ku bëgg ma faj kattan na woote ci numéro bi ñu jokk kenn mu faj ko ba mu wér te ñun ñoo koy fay ñun journaliste ñoo koy fay. ma woo leen nag sone ba kii jot jotuma. parce que xam naa ne fixe la 33 xaw ma 800 nangam. ma ne ñooñu même bu dee ñoom ci seen bopp ñi toog foofu bu dee ñoo ñoo maanaam ñoo feebar feebar boobu noonu. suñu ñëwee fii wér. waxuma ñu indi keneen de. saa njóog wala Assane moom bu dee ñoo am problème boobu. nañu ñëw suñu ñëwee dañu wér. te dañu may fay nag ba pare ma soog a leen jox samay garab. di ñoom nag dañu bëgg jox leen nga jox leen si maanaam sa sa garab. fekk du ñu la jox xaalis. du mhm. yoon. Mhm. il faut léegi ñu jox la xaalis bi bu dee da ngaa sa bopp lekk wala nga denca ko kooku utiliser garab bi gis résultat ñu wax ne weer na wala nangam nangam mhm. nangam. yaa garanti lool sëriñ bi. waa garanti lool. yaa ko garanti saa nag maa ngi koy xaar fii. maa ngi xaar fii. maanaam képp koo xam ne am na jafe-jafe ci wàllu kattan bu la seetsee yaakaar naa ni boo leen jubboowee mbirum kattan yaakaar naa loolu si ginnaawam lay. nekk émission boobu sax wax naa bii paas. maanaam waxtaan boobu waxoon naa ko. ci garab bi ñu ko euh, garab bi soo gisee bi ñu defa euh, defa euh, defaree kattan mhm. daa nuuru awra góor mhm. maana doom yi dañuy nuuru doom awra maanaam mhm. awra góor loolu moo tax nag ni mu dëgër nag dafa dëgër machine rek moo ko mën a defar mënoo ko débb ni ba mu soo ko gisee rek dangay xam ne kii kii kii affaire la ku ko naan guddi guddi googu di nga wax lu leer wala soxna si duna wax lu leer loolu kay amul benn laam-laam bu ci nekk amul benn sikki sàkk bu ci nekk am na <laughs> beneen booy bind sax boobu soo ko bindee jokkoo ko nee na maanaam ay turu malaayika lay doon <laughs> uh-huh. euh, leneen lay doon uh-huh. maanaam day toog ci feer sukoy koy naan ci feer uh-huh. lay toog leneen lay doon nee na ku ci sikki sàkk sax yéeféer nga ku am sikki sàkk sax yéeféer nga ci affaire bi kon loolu moo tax bu dee loolu rek mooy seen jafe-jafe wala moom loolu la ñu soxla ku faj faj loola maa ngi leen xaar fii uh-huh. wala man woo naa leen jotu jotuma leen sama numéro mu ngi noonu uh-huh. suñu ci mënee woote nañ ci woote ñoo xam te ñuy ñëw pour bëgg faj kooku nag uh-huh. incha allah yàlla dina ko faj macha allah sëriñ balaa ñoo génn ci loolu sax bëgg naa tuuti ñu ñëw tamit ci mbiru yokk awra ndaxte cool yi bëri na lool lool lool ci mbir moomu yow ban taxawaay nga taxawee ci wàllu mu yokk ak wàññi awra waaw man yokk awra duma ko wax li may wax mooy yokk kattan. Uh-huh. yokk ngóora. Uh-huh. ngóora su su yokkoo rek. Uh-huh. a war a yokk. il faut ngóor mu dëgër. am na bu yore bu gàtt te mu dëgër. mu mon ku yore bu gudd te dëgërul. kon mbir mi dëgër la laaj. il faut mu dëgër. mu mel na feer. loolu moo ëpp solo man loolu laay wax. wante gis naa xam ne dañu wane dañu dañu dañu yokk. loolu duma ko weddi. xam-xam yaatu na mhm. waaye man li may man li may def loolu lay wax mhm. te maa gis ñu bari tamit ñuy yéeféerlu ay nit mhm. gis naa ko ustaas yu bari waxtaankat yu bari ñoom suñu dee safar lañ jëm leen wax loolu ah Wally Seck nangam nangam nangam ñu mel ni ñoom suñu demee safar lañu suñu tuubul ba ñu dee safar lañu jëm ku leen wax loolu tey ne ñoom ñu ñoom seen bopp tey tuub rek ñoom ci lu ñu nekk si lu ñuy def ci bit ak lu ñuy def ci seen biir néeg yi kenn xamu ko. Mm-hmm. ñoo ak yàlla rek ñoo ko xam. Mm-hmm. te nag euh, ragal yàlla même tuuma yi ñu doon wax léegi. Mm-hmm. ragal yàlla ci xol lay nekk. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne attaqwa hahuna attaqwa hahuna attaqwa hahuna ñetti yoon mu koy wax. te wallahu alimun bi daati sudur li nekk ci xol yi yàlla moo ko xam. bés dina ñëw ñu feeñal sirru yu sakkar yi yaa ma tubala sarairu. bés boobu dina ñëw te ñu xaar bés boobu rek kuy bakku nga soog a bakk. wante yaa ngi daal suñu safar lañu jëm. danga xamul ne yéeféer ku dul julli kudul wor woor def dara defa araam ci shariatu nga wax kii su safara la jëm mm-hmm. loolu dafa araam mm-hmm. parce que yàlla moom moom jaam yi yow moomoo ci dara mm-hmm. yow am moon du yow yaa yaa yor aljana yoroo safara yow xamoo sax foo jëm ah bu dee sëriñ bi nga yaa xamoo sax fu mu jëm lu mu mon rek mooy tegtal la won la yoon loolu moo tax nañu moytu gis nga sama mbokk boobu noonu foofu lay tëjee na Ahmad Sis diñ ko dooroon Kaolack lu yàggul xam nga li ko yóbbee ci loolu. lammiñ lammiñ. lammiñ mhm. moom mhm. li mu gis tuuti rek dugal ci lammiñam ji. Mhm. maa ngi koy ñaan ci teggin ak teraang. borom xam-xam la nag. am na fasaa mën na wax xam ne maanaam xam na addina bi ni muy doxee. waaye nag lammiñ bi. na na ko gën a yeew. parce que lammiñ gaynde la. soo ko boyalee rek mu lekk la. te moom nag gis naa ne ku wax tuuti rek. dina ci wax dara. Mm-hmm. loolu nag soo koy def bés dina ñëw. Mm-hmm. nga jàpp sax li nga wax du dara fekk dara la. Mm-hmm. ñu door la ci. moo ko dal. làmmiñ day loraate. waaw yonent bi nee na ku yàlla musal ci ayu làmmiñam. mi nekk ci ñaari maanaam eh, lexam yi. ak li nekk ci suufu tànkam yi mooy awram ak làmmiñam ku yàlla musal ci ñaari yi neen di nga raw. Mm-hmm. waan ci raw ci nag yombut ak yonente bi neen ñiy dugg safar yëpp seen lamiñ moo duggal safar mm-hmm. benn a ah, duggal nit safar yonente ba ah yow te ak sa yaay jurul sax mm-hmm. li nga loolu ngay laaj ñëpp ñuy dugg safar kay mu ngi leen duggal safar kon loolu moom na wàññi wax ci loolu gis naa mu nga sëriñ yu bari kilifa yu bari wante maa koy ñaan na bay loola parce que su ko bayee bi nee na su doonee xaalis noppi doon urus kon noppi waykat bi nee man wax naa ma reccu ci ay yooni yooni yoon wadde mm. musuma noppi ma reccu mm-hmm. kon moom na yokka noppi te eh, dañu wax ne eh, noppi al hikma maanaam al samtu hikmatun mm-hmm. wala maanaam noppi hikma la mm-hmm. xam-xam la te nit su feesee yàlla rek day ndi muy nëpp moo lu mu wax wante ko gis mu bari wax rek yàlla daa feesut ci moom rek kon nañu wàññi wax yi ñu gën a feeñal jëf yi te mu rafet loolu laa ko laa koy ñaan Euh, moom euh, sama turando boobu noonu. Mhm. Ahmad Ciss incha allah. kon euh, xam naa ne. Mhm. loolu laa bëggoon a. <laughs> indi balaa ñoo tàggoo rek sëriñ bi. tamit uh-huh. gis nañ ni génn nañ ci. mbiru mm. élection. Mm. te ku wax élection mm. wax mbiru samp. te yaakaar naa ni am na ñu bëri macha allah. seet woon nañ si. tey suñu borom defal leen ci ay résultats yu kawe seen jortu. sa digganteeg samp sëriñ bi tamit balaa ñoo tàggoo. waaw xam nga ñu bëri dama mos a ñaanal ku doon def examen. yàlla dogal école boobu noonu ñu bari ñu at ci uh-huh. euh, te yàlla su nangoo ñaan rek da koy nangoo façon yu bari uh-huh. ci ñoom uh-huh. am na ñu ñu ñaanal dégg na sax ñuy wax na ñu bari de nekk nañ fii maire ngir barke Sonko waaw bokk na ci de waaye ngir barke ñaan tamit ñaan am na de du sonko rek mooy ñaan bi. Mhm. maanaam mooy affaire bi. Mhm. loolu mooy ñeneen ñu ngi koy kaas war waruñu wax loolu. Mhm. wante moom bokk na ci wante ñaan yi tamit bokk na ci. te bu dee samp rek nit ku doon ba pare xam nga ku man jour maanaam ñoom maire yi léegi. samp nañu leen. wante dafa am lu leen war a téy. lu leen war a dégëral. maanaam téy leen da ngay gis ku jëmbat garab ba pare garab bu ndaw. day indi ay ay ay ay yeneen maanaam ah, kii ah, mu samp. pour takk ko ci. pour mu mën mhm. a taxaw normal. Mhm. loolu nag mooy samp nit. Mhm. il faut mu ñu téye ko. ñu sampa ko ñu ña defal ñaan yooyu moom pour mu dëgër. wa illa rek mën na fa jógee ci lu gaaw. parce que mystique dafa bari. zaman bii ni ah dañu gis li bari na. te ñu bari ñu ngi wane sax fekk li wane. nekkul dara hmm. man gis naa fan yii ci benn télé ñuy wane ay fétiche yoo xam ne nee na hmm. fétiche la hmm. nañu def ci kanam nit yi mënuñu def dara loolu kay doy doy doy na gàcce loolu loolu du xam-xam xam-xam mooy alquraana xam-xam mooy mooy lu wér xam-xam mooy lu sell wante ay affaire yu ñuy wan ni loolu loolu dafa seexlu loolu sax jullit waru ko def te jullit léppam dafa war a teey dafa war a rafet dafa war a sell ñun alquran la ñu am yonente bi neen ko am alquran nga koy xeeb dafa mel na nga gis ku yore weñ gu ñuul te nga yore maanaam uh, wurus. Mm-hmm. ngay xeeb wurus bi nga yor ngay ñeex borom uh, lam maanaam. Uh, weñ gu ñuul boobu al mm-hmm. alquran nag mooy lépp. Mm-hmm. kon kuy tiitaru na nga ci xam-xam gis naa benn ustaas sama xarit sama dama ko bëgg. lool waate moom gis na muy bakku ci ay am am mhm. oustaz du bakku ci yooyu mhm. borom xam-xam du bakku ci yooyu mhm. am na oto bu rafet am na yëre bu rafet am na kër gu rafet déedéet yow bakkul ci xam-xam li la fol ba nga doon a oto bu rafet wala kër gu rafet wala liiru rafet bakkul ci loolu xam-xam la ñuy bakk wante wala ci leneen yonente bi yonente yàlla Suleymaan foofu lay tëje yàlla da ko jox ñett nguur xam-xam maanaam eh, am na am na bu ko ñetteel di alal mhm. mu tànn maanaam xam-xam mhm. yàlla jokk alal yàlla jokk nguur mhm. kon loolu moo tax borom xam-xam lu mu war a tiitroo mooy xam-xam yonente bi neen al ulama warasatul anbiya borom xam-xam ñooy doon yonent kon kay yow amoo beneen tiitar boo war a tiitroo budul lu kon ñun nañu suñu bop xoolaa suñu bopp ñu ngi tuumal ustaas yi de ñu ngi tuuma tuumal imaam yi de yi de kon nañu delluwaay ci seen bopp xoolaa seen toogin xoolaa seen doxalin ñu moytu whatsapp ñu moytu. Mhm. téléphone yi ñu moytu ñu moytu ñu mhm. moytu wa illa a ah, lu ñu leen wax ñoo ko def de. Mhm. parce que suñu moytuwul tamit lu ñu leen tuuba rek ñoo koy def day day wax ñoo koy def. ñoom tamit euh, jigéen sutural la. jigéen dafa war a suturaal léppam. baatam sax awra la. kon moom dafa war a bëri sutura. dafa war a bëri sutura jigéen nañu delluwaat gennaaw ñu am sutura ci seen bopp. soo weeree sa xarit wala sa mbokk yow sa bopp nga weer de. ëpp ko nga weer ku jigéen ki bu dee moo ko wax tamit macha allah mm-hmm. moo jë bokk maanaam boppam ne jëkk weer mm-hmm. kon nañ suturaalante sutur rek moo fi nekk incha allah yal nañ yàlla suturaal amiin suturaal euh, euh, am na benn sëriñ bu fi nekk woon loolu rek laa doon laaj mm-hmm. yal nañu yàlla suturaal yal nañu yàlla suturaal surtout yàlla mooy lekk maanaam mooy lépp te nañ ko yàlla defal defal ko waa Sénégal defal ko waa addina bi ñaanal président ñaanal ñi ko topp ñi bëgg doon président tamit ah suñu génnee góorgóorlu rek suñu bi tamit. waaw équipe bi tamit macha allah football bi. <laughs> ñu ngi si. dañu war a football sax tey. <laughs> Uh-huh. ñu ngi leen di ñaanal bu baax. Uh-huh. yàlla defal leen ndam. gis na sëriñ yu bari na ñu si wax. Uh-huh. nañu bay loolu. lamb buy ñëw rek ñu wax ci. wala uh, massa buy ñëw rek ñu wax kii mooy gaañ gi gis na ñu wax ci fekk bii bii paas rek wul noonu. ñu bari wax waxoon nañ leen fii ñooy kii kii nangam nag dara nekku ci. yàlla moo xam loolu nañu bay loolu bi affaire bi jot. maandu dafa bokk ci mbiru jullit mm-hmm. wante maandu wuñu mm-hmm. xam-xam na am na wante maandu amatul mm-hmm. loolu moo tax euh, essai yi ñuy def du essai rek la ci essai lay mujj kon nañu wàññi kaddu yooyu noonu lu ñëwagul daal nga bàyyi ko nga ba mu yëg si rek soo ci xamee daal tamit lu gën sax nga noppi rek ba mu feeñ nga si wax loolu daal mooy mooy bi insha mhm. allah maa ngi leen ñaanal yàlla def leen jox jox leen victoire te di leen ñaanal yéen tamit bu baax a baax di kontaan ci yéen eh, wax ne eh, site bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu insha allah lépp li ngeen soxla yàlla defal leen te yàlla defal ñu tawfiq ci zahir ak ci baatin in uridu illa islam astataat wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa